salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki am média groupe Darini bokki taalibe bokki jullit yi ginnaaw sante suñu borom wa taala julli ci yonentam bu sallallahu alayhi wa sallam di lu sant Seexna al Xadim di ñaan allah taala kon noo ngi dikkaat ak yéen ci sunu nisaa il muslimaati nasihati al muminina wal mu doon jataay boo xam ne jataay fàttalante la waaye jataayu laayante biir la ni nga xam ne noonu la ko alquranul karim waxe ak xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sunu jataay bi nga xam ne moo paase noo ngi woon ci ànd di jàngat bind yi nga xam ne moo nekk ci téere bii di axiru zaman waxoon nañ ko nag ne am nañ ñu ciy wax ay wax waaye li ñu ci itte rek moo xam li wér mooy mi ngi bàyyi ko ci sëñ bi wala bàyyi ko ci sëñ bi waaye mi ngi eh, ñoo ngi ci jàngat tomb yi nga xam ne yu wér la yoo xam ne yoo mën a delloo ci alquran la mënees koo delloo ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man koo delloo ci mbindam sëriñ bi nga xam ne kenn amu ci sikki sàkka mu mel ni ñoo ngi ci doon eh, dénkante ak yéen ba fi nga xam ne foofu la foofu la ñuy eh, foofu lay dénkee mboolem taalibe yi ak mboolem mbokki jullit yi ci ñu farlu ci ay teggin waaye farlu ci xam-xam ndax yu ñaar yuy kat bokk na ci li nga xam ne mooy euh, musal jullit bi ci mbugalam ëllëg yowmal xiyam ndax xam-xam ak i teggin xam-xam euh, yonent bi sallallahu alayhi wax na ci lu bari lool lu aju ci wàllu xam-xam waaye it ay teggin tam wax na ci lu bari lool Sëriñ Tuubaa wax na ci lu bari lool waxoon nañ ko indi ci lenn ci li mu li nga xam ne waxoon na ko ci ay teggin yoo xam ne nit yàlla ñi nga xam ne ñoo àgg ñoo dem ba àgg ci suñu borom subhanahu wa ta'ala la leen du jàggin julli yu bari wala koor wala asaka wala añ màkka loo ci def ko dàq julli dàq dàq woor dàq asaka dàq añ màkka te amul ay teggin du ko jëriñ dara waaye bu kii julli di woor di asaka di añ màkka di saraxe lépp nag tege ci ab xam-xam ak tege ci ay teggin loolu mooy liko ko li ko li koy jariñ waaye itam ci digle ci topp sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yu yëpp mi ngi ci topp sunna waaye mooy te ndi ko topp bidaa ndax mbooleem ay yëpp mi ngi ci topp bidaa waaye jëfe ndigale suñu borom subhanahu wa taala te bàyyi ay tereem kon noo ngi noo ngi noo ngi commencé tey la tushriku billahi ya ixwaani li'annahu yahdi ila niiraani luqman xakim dafa waxoon waxoon na doomam bu mu koy dénk ne ko laa tushriku billahi ya ixwaani wala ngeen yaa abati laa tushrik billahi inna shirka la zulmun azim yow sama ndoom nanga mooy tundiku bokkaale si borom subhanahu bul di bokkaale si ci say wax bul di bokkaale si borom ci say jëf mu doon lu ama am solo loo xam ne ba yaatu na lool bokkaale suñu ci ay wax wala nga bokkaale ko ci ay jëf lépp nag aju ci ñàkk a xam waaye ki nga xam ne moo jaar ci dégg dégg dégg njàngaleem Sëriñ Tuubaa toujours moom dana xam ay waxam xam ko ta te bàyyi ko xel toujours dana bàyyi xel ci ay waxam la ca suñu moom mu jox ko ko te bañ koo boole kenn la ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu jox ko ko te bañ te bañ koo boole kenn la ca sëriñ bi moom wala la ca ñeneen moom ñu jox leen ko te bañ caa bokkaale suñu borom ci ay waxam wala ay jëfam loolu moo tax Luqmaan waxoon ne waxoon doom ji yaa bunayya laa laa tushrik billahi inna dirka la zulmun asim yow sama suñu doom bul bokkaale yàlla ndax bokkaale kat tooñ lu bu màgg màgg màgga màgg wala nga ne ak lëndëm lay jur loolu moo tax mu ne laa tushriku billahi yaa ixwaani li annahu yahdi ila niiraani bokkaale suñu borom kat xëcc nit ki di ko jëmale sawara bu leen yàlla yéen damay bokk ndax day xëcc nit ki di ko jëmale ko jëmale sawara del wax ko ne del wax del wax ne laa taqtulu nafsa bi xayri nafsin is nahyuhu bada bi xayri nafsin bul rey bakkan mukk mukk ci lu dul bakkan ndax tereem googu kat lu feeñ la lool te amul benn lënd man xatala muminan mutaammidan wa jasaauhu jahannam ku koo xam ne danga rey aji gëm te tey ko ëllëg yawmal qiyaam sa fay mooy sawara kon moo tax mu ne laa taqtulu nafsa bi xayri nafsi is nahyuhu bada bi xayri nafsi bi xayri nafsi mooy ngaray ab julli ngaray ngaray bakkan te tegu ci rey goo xam ne sariya moo ko tënk bu sariya ne leen ko nag nga teg nga teg ko fa fa sariya wax ne ko rey rey leen ko waaye ànd ak la ca war a ànd lépp waree rey dara nekku waaye rey rek ci lu ben benn xaqi sariya ne na képp koo xam ne def nga ko ëllëg yawmal qiyaam sawara mooy doon sa kër wala moo tax laa taqtulu nafsa bi xayri nafsi is nahyuhu bada bi xayri nafsi dala wax ne eh, laa taqrabu zina maa tughyaani wa maala ghayrikum maal maylaani bu jege njaaloo ndax alquran da wax ne bu alquran da wax ndax innahu kaana faahishatan wa saa sabila na ngeen moytandiku di jege njaaloo ndax loolu lu ñaaw la te yoon la woo xam ne yoon wu la kon laa taqrabu zina na ngeen moytandiku njaaloo kon ab jullit yépp yoon woo xam ne bu da bu danaa ko yoon wi yoon wu lëndëm la yoon wu bari ay ay ay mbugal la ak i bàkkaar daf koo war a moytu bokk na ca wa maala xayrikum maa tuxyaani ànd jeng jëm ci keneen ànd ak koo xam ne euh, ànd jëng ànd jëng jëm ci ña nga xam ne ñooy jëng wali bi yoonu suñu borom subhanahu wa bu leen jëng jëm ci ñay jëng wali bi yoonu borom bu ngeen di jëng na ngeen jëng jëm ci ña nga xam ne ñooy jëng jëm ci suñu borom waaye ñay jëng jëm ci an mbewte jëm ci àddina jëm ci ay bàkkaar bu leen jëng jëm ci ñooña wa maala xayrikum maal maylaani kon la taqtulu nafsa laa taqrabu zina maa tuxyaani wa maa la xayrikum maa al maylaani bu leen jàng mukk jëm ci ñuy njaaloo ak ñay ñi nga xam ne ñu bew lan ngeen jàng jëm ci ñi nga xam ne ñoo jëm ci ak njub ak ñu jàng jëm ci ak njub ndax bew moom alquran waxoon na ne amma man taqa wa xaasara fa inna al jahimi hiya al ma'wa koo xam ne dangaa bew waaye nga jël sa lépp jëmbale ko ci àddina rek nana su ëllëgi yomal xiyaam sawaraw jaxiim mooy doon sa dëkkuwaay kon boo jàng jàngal jëm ci ñi baax anil mar'i la tas'al wasal an xarinihi wa kullu xarinin bil muxaarini yaqtadi kay jàng àndoog ànd ak njaalokat ni lim njaalokat ya foofu rek koy boole ka jàng ànd ak ñay bew bu ni lim bewkat ya ci lañ koy boole waaye ka bew ka jàng ànd ak ñiy jaamu suñu borom ànd ak ñay topp sunna Yonent bi sallallahu alayhi foofa rekk lañ koy boole anil mar'i la tas'al wasal an xarinihi wa kullu xarinin bil muxaarini yaqtadi waaye wàccani bul xibata wa riyaa wa suu'a wal munkara wal fahshaa na ngeen moytandiku jëw na ngeen moytandiku njistal na ngeen moytandiku lépp loo xam ne lu ñaaw la ak lu nu sib ak aw ñaawteef mel ni jëw ci jataay yi passé ñëwoon nañ ci lu yaatu lu xaw a yaatu ñëwoon nañ ci tem ci njëstal ak yi ci na ci namimatan kisban wa kibran wa kibriya riya xiyaanatan gazal mira na ngeen moytandiku rambaaj na ngeen moytandiku wax lu dul dëgg waaye na ngeen moytandiku rëy rëylu na ngeen moytandiku di wor wor seeni moroom wala wor seen wala wor seen borom subhanahu wa taala war sa borom subhanahu wa taala nag mooy sa borom sàkk la jox la ak wér jox la am xel defal la lépp ba mu mat waaye xañ ko ñeneen nga jëmale loole ci feneen walib suñ borom subhanahu wa taala loolu bokk na ci wor waaye war la goo xam ne gu wëlbatiku di dellusiwaat ci sa kaw rek la kazal miraa na ngeen moytandiku werante ndax werante bokk na ci li nga xam ne mooy sànq dunduk nit ki ndax wax bi mu waroon toog di werante mën na koo toog di tuddi yàlla di sikkar jàng alquran wala lu ko nuru bokk na ci li nga xam ne mooy sànq ak dundam waxoon na feneen ne fakun uqayida bital xawaasi fi kulli waqtin xaafisal anfas li anna kullu nafasin min rajulin jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an yustariya alkanza biha li yatalaha xayruhu fantabiha loolu li muy teg rek mooy yow sama yow euh, sa sama mbokk nekk di wattandiku sa jëmm sa noy yi waxtu woo nekk ndax li na kullu nafasin min rajulin jawharatun nafisatun lam tanjali noyyi gu génn ci doomu aadama rek noyyi la gu seer goo xam ne mën na caa jëf ak topp yàlla goo xam ne bu koy jariñ la àddina ak àllaaxira kon bu seeree lool nga mën koo jëf ci jàng alquran jëf ko ci jàng jëf ko ci déglu ñiy waxtaanee euh, lu baax nga jëmee ko ci werante ak yugu nuru yow yaa ngi sànq sëg dundu te yëgoo ko na ci war a yatil fadli ala al bokk na ci gis gis xool ngëneel ci kenn gis kenn jàpp ndax yaa gën waxoon ne feneen fa kullu man yansuruhu fawqahul kilaab fal kalbu xayru minhu dunal irtiyaab koo xam ne danga gis sax sa sa ba gis ba tax nga gis ay këlbu ay xaj jàpp ne yaa leen gën nena fal kalbu xayru minhu dunal irtiyaab nga xam ne kon xaj baa gën te amul benn sikki sàkk kon wa ru'yatil fadli alal axyaari gis ngëneel ci keneen suxbata faasixin bila bila tiraat naka noonu ànd ak faasix te ci lu dul loru ànd ak faasix ci lu dul loru ndax bu fekkee loru la dañoo xam ne ak darura tubix masurat waaye su fekkee ne amul benn benn darura day xaram nga ànd ak faasix na nga ànd ak gaa yu baax yi comme ñu ko waxee léegi an ilmari la tasal wasal an xarinihi fa kullu xarinin bil muxaarini yaxtadi booy ànd ak gaa yu baax yi bu yàggee nga baax ni ñoom ay bu ànd ak booy ànd ak ñi nga xam ne ay faasix lañu bu yàggee mën nga faasix ni ñoom kon tuubu ala alfawsi iza aznabtum duumu ala sukuuti in xadibtum na ngeen ndax bàkkaar bakkaar waxoon na feneen isi zunuba turisul xasaawa kamamata watu jibu shaqaawa bakkaar day waral ak texeedi waxoon na wa dum ala tawbati fi kulli zaman min jamiil isyaani sirran wa alam kon na di tuub bakkaar yi te it na ngeen di sax ci noppi ndax rubbal kalaam ndax law kaana kalaamun fiddatan la kaana sukuutu zahaban na na su fekkan ne wax di eh, xaalis la kon noppi wurus la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw li yasmut ku gëm yàlla gëm bis gëm bis pénc ba del wax aw yiw rekk te noppi ci safaanu aw yiw mu del wax duumu ala ala makarimi al axlaaqi ala nifaaqi na ngeen sax ci makarimul axlaaq mooy jikko yi tëdd te ngeen moytandiku lool ak naafeq mooy li mooy li suñu borom subhanahu wa taala bi wa innaka la ala xuluqin azim naka noonu ngeen moytandiku naafeq ndax alaamatul munaafiqi salaasa màndargaam naafiq ñett la koo xam ne bu waxtaanee wax lu dëgg bu digee wor buñ ko wóolu mu wor bu digee wuute ab dig loolu mooy ñett yi nga xam ne ku ci am benn am nga benn ci ak naafiq waaye ku ci boole yépp nag naafiq nga bu mat sëkk ak donte man naa gën a yaatu lool lan mooy naafiq man naa gën a yaatu lool waaye incha allahu taala dañuy taxalu foofu ba beneen jotaay ñaan suñu defal ñu tawfiq ak diir ak topp war Seexul Xadiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu amma bu xasin alfaruq sayyiduna fa fi masayaahu la yartaabu tayyaaru وهو المتم ذوي الإسلام يوم عدا miima bi kaana lil islaami izhaaru wallaahu farraqa bil faaruqi sayyidina alxaqa min baatilin abdatu fujjaaru